Euh, ñu ngi nuyoo bu baax a baax tey siyaare nuyoo bi ak siyaar bi ñu tag ko ci loxol suñ Cheikh Coro ak suñ Cheikh Naam Mbàkke bi ñoo fi deret Sëriñ Tuubaa ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ñu tegal na ko ci képp ku nekk ci biir jataa bi rawatin nag ñi ma bokkal quartier bi ñooñu laa gën a nuyu nuyoo xool rawatina ñi nga xam ne dañoo wuy sosu ni ma bokkal quartier bi ndax kii di wax léegi sama yaay la mi ngi ñëw ànd ak doomam te mënoon na koy fekk kon gis nga ko sëñ Cheikh li ma la doon wax ci firnde jàngoog ñu ngi leen di nuyu merci nuyoo bi tegal ma ko ci képp jigéen ju nekk ci biir ju fi nekk euh, di nuyu nag képp ku fi teew ndaxit buñ nekkee di lim na nañu sun xel fàtt ci kenn te duñ bëgg bàyyi kenn moo taxoon ñu bàyyi kee limoon euh, dala ñu fi teewoon kon lim gim lim ñu fi teewoon ci suñ kàddu la kon ñëpp ku mu mën di doon naa xam ne tudd nañ ko ku tudd ti tudd nañ ko ci suñu xol tudd xol bi moo ci am solo te ku mu mën di doon tudd nañ ko ci sun xol ki fi teew ndax gis nañ ñëpp gis nañ ñëpp euh, sëñ Cheikh Thioro ñi ngi leen di siyaar di leen nuyu te leen wax naa dal leen jàmm te di leen wax ne fii ñu dikk fii ngeen dikk ci mois bu un mois bu deux euh, ay gor ngeen fekk ay gor ngeen fi fekk euh, da ngeen fekk ñoo xam ne nii ni ñu weñ euh, fu tooy ñu dal fu tooyut ñu dal da fee fekk ñoo xam ne nii buñ dee dee gor lañuy ñuy dee buñ dee dund gor lañuy dundee moo tax maam ngeen fekk leen moo moo tax ngeen fekk leen fii ndax jataay fii def nañ fii jataay def fii jataay defat fii jataay waaye yéen yéen a ngi fi léegi ñëw gor nag moo tax doon as gor moo tax ñu dikk fii sëñ Cheikh Thioro la ma la waxoon ne la kenn rek moom a tënk ci politique mooy ñii ñii ci sama ginnaaw ñoo ma tënk ci politique kenn tënku ma ci politique amul kenn ku ma ci politique ñii ci sama ginnaaw ñoo sañ ma jëm fenn ñu ne ma doo fa jëm ñoo sañ ma bëgg ma bay ma bañ fenn ñu ne ma fii leen bëgg ma dem foofa ñooñu maa ngi leen di sant leen gërëm ndax su ma wootee ñoom laay gis su ma wootee ñoom laay gis su ma su ma sonnee ñoom laay gis su ma bégee ñoom laay gis kon ñoom doo nga ma tënk ci politique keneen tënku ma ci politique maa ngi leen di sant santu xol maa ngi leen di gërëm gërëmu xol ñoom laa àndal ci politique tey nag sëñ Cheikh Thioro wóote wuñ booloo comme ni ko kii waxee dañoo woowan responsable yi xamal leen fa ñu féete fañ leen fee fañ féete nag yiwi askan wi la di soutenir wallu wallu wallu ñu bëggit képp koo xam ne nii daan nga nu wooteel ak képp koo xam ne nii suñ soppe nga ak képp koo xam ne suñ xarit nga nga dimbale nu woteel nu wallu ngir mu jàll ci ci département bi gañe département bi ndax mu gañe département bi ndax koñ bii nga ñëw Cheikh sëñ Cheikh Thioro jàpp naa ne ñuy wote lañ ndax koo fi gis am na dante wutal waa këram dante doonu te dante mooy wote tey ci suba am na ku dikk na man nañu ànd ma jëli sama carte mu ànd mu jëli carte am daf ne daa bëgg a rendi bopp daa bëgg a rendi ku bëgg a rendi nag day wut ngànnaay kii xeex day wut ngànnaay te yor wut ñoom war yor nañu ngànnaay kon sëñ Cheikh Thioro fii nga ñëw na sa xel dal ci ne ñoom dinañ soutenir wàllu danañ soutenir liste bi ba mu jàll liste bi nag ñi ngi ñaan yàlla mu jàll sëñ Cheikh Thioro euh, li tax ñu soutenir wàllu euh, sa jëmma tax ñu soutenir wàllu sa sa jëmm moo tax ñu soutenir wàll sëñ Cheikh Thioro moo tax ñu soutenir wàll amul kenn ku tax ñu soutenir wàll ku jëmmi sëñ Cheikh Thioro lii dajee am muy ab dongab daara la comme noonu di sëriñu Mbàkke Mbàkke ñu am yaakaar ci moom ne bu demee assemblée bu demee assemblée donga daari dañ ci gis seen bopp ñu am yaakaar ne bu demee assemblée sëñ daari dañ ci gis seen bopp ñu am yaakaar ne bu demee assemblée bu demee assemblée donga daari yeeg sëñ daari yeeg sëriñ si dañ ci seen bopp ndax amut sëriñ si gisuñu seen bopp donga daara gisuñu seen bopp sostu seen daara ndax bu ñu xoolee Touba li fi nekk ci seen daara ñu tëj leen ci biir kaso bi ci ñi def ak ñi defut xàmme wuñ ku def ku defut loolu nag sëñ Cheikh Thioro ñi ngi lay ñi ngi lay ñaan ndimbal ngir boo demee daa boo demee assemblée mu soppeeku am nañ yaakaar ci mu soppeeku ba ca desit mooy nun ñi nga xam ne ay boromi kër lañ bëgg nañ nga dimbale nu ca boo demee assemblée yaag ña nekk ngeen nga xam ne ay dongay daara ngeen askan wi leen tax a jóg ngeen wote loi ba dund bi yombu dund bi yomb faj mi yomb ndax it dund bi seer na faj mi seer na képp kuy borom kër wala muy joxe dépasse wala muy joxe njël xam na ne euh, euh, dund bi seer na xam na ne faj bi seer na te sa sa sa saa su ne bu dee maanaam boo boo boo woppee faju boo xiifee lekk boo maree naan réew mu neex loolu nag bëgg nañ maanaam ku ñu ci dimbale boo woppee faju boo boo xiifee euh, lekk loolu lañ soxla boo maree naan lool la loolit it la ñu am yaakaar ci ne Serigne Cheikh coro bu demee maanaam assemblée dina soppeeku du bokkut ak ña fa nekkoon moo tax ñu dikk soutenir la ñu ngi ñaan ci barkab Xaadim Moustapha maanaam wallu gañe ñu dem assemblée. waaw bu mel ne sëñ Mbaye da ngaa am ci coalition boo nekkoon. Mm-hmm. mu mel ne nekkoon am ko leader boo doon ànd ñu ko doon wax Abdoulaye Niang. Mm-hmm. moom tey mu dem jàppale ci Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. waaye dafa mel ne yow yóbbuwaale da ngaa bañ ñëw na da ngay rester si opposition bi ànd ak Pastef jàppale sëñ Cheikh Thioro. jërëjëf. loolu euh, du man dong sax na ñeneen ñu ñoo xam ne dañoo ànd resté ne nañ dikk ànd ngir jàppale ji sëñ Cheikh Thioro Mbacké wallu ndax it bi mu bi suñ seex coro dikkee nga xam dafa ma woo ma mu taal otom dikk fekk ma fi fi ñu toog mu wax ba pare dama ne ko bu fekkee ne ñi ma àndal nangu nañ dinañ ànd ak yow bi ma laajee ñi ma àndal ñëpp d'accord ci nañ ànd ba ci mouvement yi ñu tudd ñoom ñoom it dégg dikk ma am dikk soutenir nu dañuy ànd ak yow ngir jàppale ci suñ seex coro ngir waa wàllu jàll dëgg la nekkoon naa ci ab coalition nekkoon naa ci ab coalition waaye nag nun du ginaar duñuy ay euh, euh, xati ba nga xam ne dañuy jël ay pepp ak ay lay dunu saxal nañu ram nun maanaam ngor fuñ nekk goronu fay rey bu buñ dee dee ngoronuy rey buñ dee dund ngoronuy rey ñu doon ko doonu nit maanaam koo xam ne ci saak lañ ñuy def ba fu ñu neex jëma moo war a it bañ nekk ci coalition nekk ci parti ñu jóg dem ca euh, foofee ñu naan bokk tas yaakaar nun duñ fa dem ñu daal di bañ dikk na kii ñi yoo xam ne am nañ fi yaakaar ñu ñëw fi noonu ñu ah. léegi kon dafa mel ne teranga Sénégal su ma déggee say wax moom ña dem bëriwul ñëpp daal ànd nañu ak yow. waaw xam naa du ma wax ne ña doon ña doon bëri ñëpp ànd nañu man de waaye xam naa am na lu ma ci yóbbu ndax it yàgg naa ca parti ba. doonut loo xam ne nii dama caa doon euh, li may wax toujours ne doonu ma ci si lépp caaya laa ca ndax parti bu dee bokk na ci ñi njëkk ba bari na ca xam te bari na ci ñoo xam ne jëflante na ak ñoom loo xam ne fu ma jëm ñu ànd man ñu ànd ak man waxuma ne ñëpp am de waaye dina bari ñu dem dana bari ñu dem. jërëjëf ñi ngi sant ñëpp di euh, sant sëñ Cheikh coro di santit maanaam képp kum àndal ndax jataay bi yàgg na te euh, métti na euh, itte yi bari na su xat-xat yi fi mu toll nii ñi ñi ngi sant ñëpp waaw waaw waaw mhm. lay sant di la gërëm mhm. teewaay bii nii xam nga rek dañoo nekk ay ndaw si mënuñoo wax mais ñu ngi jégalu ñu ñu ngi ci tuub kàddu yi ñu yëkkati fii ndax suñu kilifa dafa ñoo fi nekk mais ndaw yaa ngi nii nag dañoo bëgg ngeen jàppale leen ñu ngi nii ndaw yaa ngi nii dañoo bëgg ngeen jàppale ñëwal ci biir ñëwal ci biir loolu maa ko bëri complexe moo tax ndaw yaa ngi nii sant rek dañoo bëgg nga jàppale leen waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon wax sëñ Cheikh Thioro bismillah sëñ sëñ Bara Sylla waaw dana woon waaw bisimilah bisimilah inna wali yàlla wa ma tawfiqi ila billah salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbooleem ñi fi teew ñëpp waaye di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Serigne seex Thioro Mbacké sanq bi ñuy présenté dañ mel ne dañ ko xaw a fàtte ci benn côté mooy ab dongab tër bi yëpp Serigne Saliou la muy sëñ seex Thioro mii kon xàmmee wuñ ko ak sun bopp ci Mawahibou la bokk ci donga yi la bokk loolu nag dama ko ci doon ñambaas beneen ba ci dolli am na ne mbay mënu koo waxal boppam waaye ñun ñi nga xam ne ñun la àndal te ñu dëkk ak moom ci gox bi mën nañoo taxaw seere ko ci moom ndax wa ma shahid naa ilaa bi ma alim naa te fii ñi fi teew ñëpp ay góor lañ comme niñ ko waxee mbay nag yàlla dogal na du workat ndax teraanga ab Ablaye ñaan ñun ñii daan ñu fekk fii di toog ndoog ñun fii waaye ba mu woree dem ci Macky Sall mbay moom kenn du war di ko yóbbaale ndax as gor la dongam Serigne Saliou la ab julit la foo ko gisee muy dox ci soxla yi nit ñi lay dox moo tax bu tëddoon ba guddi soxla nit ñi fu leen soxla ñu fekk ko fa loolu nag moo ko ji avant campagne bu ko neexoon dem tëddi nelaw waxtu wu nee dem leen woteel yeewi dem leen woteel wàllu ñëpp mobilisé wu dem woteel leen biro bii moo koy gañe gagné élection yi passé yëpp biro bi séq ko kenn incha allahu rabbi bureau bi kenn du ci am loolu naqari wàllu la ñuy soutenir incha allah ni ko ñëpp xamee noonu fu waaye dem yóbbaale ko Mbaye sekk dem na wàllu ñun ñëpp dañu ànd ak moom dem wàllu bu ñu yóbboon faneen ñu dem fa ñëpp a ngi koy woo nag lak jóob woo na ko dañ koy wax fii mu leer ñeneen ak ñeneen ñu ngi koy woo waxtu wu ne day waxtaan ak ñun waaye dañu na ko bul wuy kenn àndoo tas ànd bokk tas yaakaar askan wi kenn wuru leen wuy ji Sonko nag maanaam bëri ko ci mbartal la laal mu dem ñàkka laal mu dem yàlla na ko yàlla sàmm ar aar ko ndax ñun ay patriote lañ Pastef la ñuy soutenir am ba am ba arrière salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi maa ngi leen nuyu di leen ziare bu baax a baax a baax di sant sëñ mbay mi euh, man sëñ Modou Jaxate laa joge guy mbind sëñ Cheikh mii mos nañoo déggante téléphone euh, ca gannaaw waaye xaw nañoo gëj a déggante tuuti euh, li fi indi nag ñu jógee guy mbind bàyyi suñu yitte mooy moom mii pastéefam bu am ci mbir mi ak euh, fulla ak fayda ju mu am ci xam liy dox ci réew mi xam ni képp koo xam da ngaa ne ci mbir di ci wootewu ni dang nga koo gëm xëy xëy jaay sa ngor dem fulla ju mu am ba jaay ngorom dem ñam daan woo di leen dajale ba mën a jaay boppam war nañoo am fullay lànk bañ a ànd ak moom ci lool bu ko ñëpp defoon léegi transhumance ak wor yi dañ waaw Touba gi damaa am lu ma naqari lool ci semaine bii ñu génn ndax dama gis ay nit ñoo xam dañuy woote woo sama ay mbokk ni ay sëti sëriñ Touba lañ yor sant woo xamante ni kenn mënta wax di ci teg leneen ñu jaay seen ngor ci ñoo xam dañ leen a ji teraanga ju rëy rëy fexe bañ falu ten xam ni mënuñoo fal seen bopp ñu jàppale leen bañ falu ñu xëy wor ke leen jàppale woon wor askan wi leen doon wateel te loolu yàlla xam na ni ñoom ci seen bopp seen xel dalu te xam na ni du leen jig loolu nag euh, woote bi ma ciy def mooy nit ñi nañ am seen fullaak seen fayda xam ni lu waay mën a bokk ak Serigne Touba ak nu mën a mel bu nekkul ci gore ak doylu nga teg ko nële warmaal ko ngir sëñ Tuubaa waaye bu mu la woo fenn ba nga wuyu ko ci ñaari liste yi intercoalition wàllu ak Yewwi te Touba ñu war a woteelu e, wàllu na ko ñëpp tasaare ñu xam ko taxaw ci xam ni woteel Yewwi amu fi njariñ woteel wàllu moo fi am njariñ te ñaari mbir damay wax ni war naa tax ñu wote liste bi bi ci njëkk mooy fexe ba ak ngóor jigéen lépp lu koy lawal mbaa lu koy doolee dakk ci réew mi te ku ne xam na ni Benno Bokk Yaakaar ci loolu la taxaw ndax bu ci taxawul woon kenn du dem indil ko ab projet de loi ci assemblé ñu war koo mën a araamal ci réew mi ñu lank di layaam layaam yi naan fi nekk doy na ak doyut lu baax du doy comme aramal la rek bu leen bu fekkoon moom moo ne ci seen xol te ñuy ay julli dëgg dëgg dëgg dañ koo war a araamal kon loolu képp ku ci ànd ak ñoom tey taxaw naan kilifa diine nga da ngay nax sa bopp waaye wér na ne doo kilifa diine ñaareel ba euh, assemblée mooy li nga xamante ni moom mooy safaanu euh, président maanaam moom moo koy saytu di ko gëstu di ko contrôler di ko daganalal di ko araamalal kon ñun 1960 ba nëgëni kuñ jox pale ba jox la assemblée. réew mi boobu ba tey musuñu cee am lu nu neex kon bi yoon war nañoo mën a seet assemblée bi ñu jox ko keneen ku bokkul ak ki ne ci pale bi sax boog ñu tànn xool ba xam xanaa kuy ne ci dara di ci ne juróom benn fukki at gisoo ca njariñ war nga ko mën a bàyyi dem seet leneen ah am na loo xam ne xel mu gàtt waru faa mën a àgg kon nañ yew te jël assemblée bi jox ko opposition